benn baykaran yi bu ñàkk bu fonkoon liggéeyam yàlla dogal mu xëy bis daldi feebar amut lu mu dunde ànd ak loolu mu nangu dogalub yàlla góor gi yàlla may ne ko benn doom nag mu jàq lool ci avenir ndax doom ji xale la benn bis góor gi génn ci àll bi di doxantu dégg genn kàddoo ndekk benn xale mooy yuuxu gis na benn xaj bu mu ragal góor gi dox ba tolloog xale bi fekk xale bi fi mu nekk xale bi di yuuxu góor gi daal di koy jël daal di koy sauver jël xale boobu daal di koy yóbbu fi nga xam ne si ne mooy këram. pàppay xale bi doon yuuxu taal otoom ñëw ci kër góor gi. ngir war koo sant ci jëf ji nga xam ne moom la ko defal ci doomam léegi góor gi daal di kontaan lool góor gi ne ko li ma def nii day lu ma war ndax sa doom ak sama doom dama ko def comme bi muy benn doom léegi nag waa ji ne ko góor gi lan nga bëgg ma defal la ko. bi nga xamee ne si ne wax na ko loolu fekk góor gi am na benn xale bu ndaw boo xam ne si ne mat naa jàng waa ji ne ko danaa jël xale bi fayal ko am njàngam lépp lu war ci moom danaa ko def ndax ëllëg mu mën a nekk koo xam ne si ne dafay jëriñ boppam jariñ am réewam. ji nga xam ne moom la góor gi sauvé woon doomam mu jël xale bi yóbbu ko ci école ba di ko fayal am jàngam xale bi jàng ba xëy nekk mag daal di mujj nekk médecin bi nga xamee ne si nekk na médecin. waa ji nga xam ne moo fayaloon doomi góor gi mu jàng doomam daal di xëy feebar ci hôpital bi xale bi daal di nekk xale bi nekkoon médecin ñëw daal di koy faj ba yàlla dogal mu tane waa ji ñëw ne ko wax ma lan nga bëgg sama alal jëpp wax ma lan nga bëgg ma fayale ko mu ne ko sama bàyyi nee na ma woon soo defalatee doomu aadama lu baax bul ci xaar ak can yow sama doom booy jëf jëfal te yàlla tax ndax fayu yàlla moo gën fayug doomu aadama jàngat bi mooy lépp looy def na yàlla rekk tax bul ko def ngir doomu aadama ndax fayu yàlla moo gën fuuf fay doomu aadama asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk Serigne Mbacke Gueye